waaw bon liñ gis euh, dal na xel parce que nit ñi teel nañoo ñëw xam nga nag contexte bi comme ci koor lañ nekk euh, te Touba souvent day gaaw a tàng donc sûrement moo ko tax euh, ñu baree baree bari bi jullee fajar rek daanaka man bi ma fiy ñëw ay six heures quelque te fekk naa fi déjà ay fil yu xaw a gudd yoo xam ne ñi ngi doon taxaw di xaar pour que à huit heures bureau yu ubbi ñu ñu mën a commencer les opérations donc pour le moment tour bi nga xam ne def nañ ko aussi bien au niveau de l'administration Euh, matériel bi mi ngi fi woon jëloon nañ seen disposition nit ñi aussi ñi ngi taxawoon mais nag euh, ñun en notre niveau en tant que euh, coalition représentative le candidat Amadou Ba am nañ quelques soucis quand même pour nos représentants parce que préfet daf ñu wax ne d'habitude dañu daan jox ay convocation pour nos représentants cette année on nous convocation yi bàyyi nañ ko par arrêté la est-ce que ñoom averti nañ seen président bureau de vote yi parce que biñ suñu représentant yi ñëwee ñenn ñi nee nañ gisuñu arrêté bi d'autres dañ ne leen bu convocation danañ dugg te gis nga jusqu'à présent am na bureau yoo xam ne mi ngi sans représentant de parce que les présidents de bureau vote ne les acceptent pas loolu nag ñun c'est à notre niveau du suñu responsabilité ñun déposé nañ ay liste bien que liste yooyu sax y des choses waroon na ñoom may quand même ñu xoolaat liste yi ñi nga xam ne nekkatuñ fi ak ñi nga xam ne peut-être qu'ils ñu mën leen ci retirer dugal ñeneen mais même bu fekkee administration accepté loolu ñi nga xam ne ñoo nekk déjà ci liste yi ñoom ñu ne joxewuñ convocation ci arrêté lañ leen nommé donc arrêté yooyu ñu avertir les présidents des bureaux de vote ñu consulter ko pour mën a accepter nit ñi ci bureau yi. waaw bon boo xoolee de manière générale euh, à part peut-être les deux coalitions yi nga xam ne mën nañu wax majeures. Euh, bureau yu ci bari boo fa duggee am na si yoo xam ne sax amul représentant de bureau vote loolu nag difficulté la difficulté réelle la liée habitude bi nga xam ne amoon nañ ko mën a euh, bu jegee comme ni ñu ko waxee dañoo reporté woon élection yi ñu moroon ñoo may ñu réajuster les listes am ñoo xam ne nekk nuñ fi am na ñoo xam dañoo nekkoon ci coalition ba bouger et cetera donc euh, malheureusement loolu amul mais le problème fondamental mooy li ma wax léegi ñoo xam ne ils sont la liste ñoom lañ déposé ñoom liste bi ñu envoyé ñooñu ñi ngi ci mais ils ont des difficultés à accéder au bureau parce que tout simplement président yi dañuy exiger indi convocation or ñoom ñoo ne dootuñu joxe convocation par arrêté la ñuy nommer les représentants de bureau vote ñi ngi ciy wax ak les autorités ñi ngi ciy wax wax ak les superviseurs du centre mais nag suñ demee tuuti ci kanam bu fekkee ne loolu mënuñ ko régler ñun danañ jël suñu responsabilité